بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لرب العالمين والسلامان على الهادي الأمين نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله مبكي tey mooy sunu jotaayu juróom benn fukk ak juróom yaar muy 67 ci sunu muqaddamatul izziya abul xasan aliyun aliyun aliyun almalikiyu alchaadiliyu taalif ko ci ngirum malik rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma ñi ngi ci albaabu althaaminu buntub juróom ñetteel fi cheyin ci dara min masaili nikaaxi ci masala yi sëy wa talaaxi ak fase kon bunt bi dala ciy jàngal dara rek ci yenn ci ay masala yi sëy ak wàllu fase lool loo ci dégge mooy kon war ngaa xam ne du ci wax lu bari maanaam du ci yaatal ndax gis nga ko ni mu ko ni ko nim ko ni ko waxee fi say in min masa ili nekkaay néew rek baabu nikaax wala yu mel noon ni ko yeneen téere defee bunt bi da bëgg naa ci indi rek aslëf ci wàllu sëy ak wàllu fase mooy kon du ci yaatal tey noonu la ko defee nag yaatalu ci lool lool amma nikaaxu ndaal baatub nikaax fa maanaahu maanaam ma fi luxati ci lakku arab duxuulu shey moo di duggug dara fii shey in ci dara yuqaalu des na wax ne ci arab nakaxati nakaxat mooy cosaan li naka xat denc na alxacaatu doj wa mooy tàbbi na rek ax faafal ibili ca ndëfeñu ndëfeñu gileem ga mooy ca weya wa naka ta denc na an naw mu nelaw ya ala ayna bët ba mooy dugg na ca rek maanaam baat buñ ko waxee daa am lu muy tekki ci làkk buñ ko waxee ci làkk lu muy tekki ak buñ ko waxee nag ci jubluwaay lu muy tekki baat bii kat nangam la waaye luñ ci jublu ñaar yooyu ñaare duñ bokk moo tax ñu naan luxatan wastilaahan mooy istilaax istilaax mooy liñ jublu ci baat bi luxa nag mooy ci làkk ci boppam lu muy tekki ci wàllu làkk loolu moom day wute moo tax ma ne bu dee baatub an nikaax ci làkku arab rek buñ ko waxee mooy dara dugg ci dara mbir dugg ci am mbir bu fekkee giléem gi day dox daa day joggi aw xeer xayru daal dugg ci biir ay tànkam dugg ci biir wey yi loolu day am léegi boo xoolee yenn fas yi wala dara boo yëkkati seen tànk na gis lu mel ne ay xeer wala dara dugg ci biir subaa dañ naan xeer wi de dafa mel ne dafa dugg dafa dugg ci weyi giléem gi wala ñu ne nelaw yi de dugg na ci bët ba maanaam nelaw dugg na ci bët dugg na ci bët ba mooy la mooy nit ki gëmmentu na di nelaw rek loolu waxinu arab la kon naka nakaxa ay na mooy bët baa ngi nelaw rek buñ ne nag nakaxatil xacaatu faafal ibili mooy xeer yi dugg nañ ci wey yi gileem ga kon dalaa bëgg a jàng rek bu dee ci làkk noonu la ni ma ko mën a misaal même ci olof loolu am na ci làkk yëpp olof am na ci bu ñu waxee baat bi li muy tekk dëgg-dëgg am na ci làkk waaye lañ ci jublu tamit moom day daal day daal am lañ ca jublu day daal day daal di am. ci misaal nit ki bu yónnee gone ci olof ci olof dana ko faral di wax yeexal yeexal te fekk yeexal moom buñ ko buñ laajoon li yeexal lu muy teg ci wolof mooy lan mooy nga baña gaaw mooy ngay def ndànk waaye kooka nag lam jublu ci gone mooy gaawal la ci jublu waaye wax ko baatub gaawal nag yeexal rek la ko wax yeexal la ko wax mi ngi noonu nit ki di saw ñu bëgg ko sutaraal ne diw tuur ndox. ndax daa tànk ndox di ko tuur déedéet waaye lañ jublu rek mooy am saw la tudd foofu kon loolu mooy baatu arab bi kese kese kese wa fi shari'i bu dee ci sariha nag bu dee ci lislaam nag buñ jëfandikoo baatu an nikaax luñ ci jublu mu ne xaqiqatun maanaam dëgg dëgg mbir la fil xaq ci fas waaye majaasun waxiin la. fil waxtu yi ci jote mu ne bu dee baat bi dëgg-dëgg ci sariya nag buñ nee nikaax mooy fas ab sëy lay tekki waaye nag dees na ko jëfandikoo majaazan mooy euh, jublu ñu jublu rek maanaam ak jote maanaam góor sëy ak jigéen ci ab sawukaay nga ne loolu wat watu la watu la mooy tur yi waaye nag léeg ñu jëfandikoo baatum nikaax foofu waaye loolu majaas la du baat bi du dëgg dëgg dëgg jubluwaay bi kon ñu ne nikaax ci sariya rek li muy tekk mooy fas ab sëy waaye góor di joteeg jigéen nag baatam mooy watu wala yu ko nuru waaye buñ jëfandikoo foofu nikaax rek loolu dafa nekk majaas majaas mooy li nga wax ni ca dëgg mbir mi du ca dëgg dëgg bel noonu la amee noona waaye baat ba dañ ko da nga dugal foofu rek te fekk danga nga koo àbb rek jëfandikoo ko waaye kii wut noonu majaas la rek majaas nekk ñu ne. kii eh, yonent bi sallallahu alayhi de tabu géej la yore maanaam ak tabam mu ëpp ndoxum géej fekk dañoo bëgg wax dafa tabe lool ba jégg dayoo rek waaye newuñ li géej gi yore ci am ndox lépp wala yu mel noona loolu yonent sax moom weesu na foofu loola waxin la nekku ñu ne yii diw de loxo bi dafa dagg te jubluwuñ ne loxo bi ci moom daa dagg tege ne lañ jublu mooy daa nay loolu majaas la mooy daa nay lañ waroon a wax ñu waxuñ daanay ñu jël na loxo bi dafa dagg loolu xeetu waxeen la rek la majaas bari na loolu ci alxuraan xaala wax na baaduum lenn ci boroom xam-xam yi xaala wax na malikun imaamu malik rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mhm. yenn ci boroom xam-xam yi jële nañ ci imaamu Malik bi ñuy jàngalee atteb sëy ñu ne imaam Malik de jëlee nañ ci moom mu ne an nikaaxu sëy daal mustahabun lu ñu sopp la maanaam ab atteem ñu ne lu ñu sopp la ab atteem waaye nag loolu benn la ci atte yi rek sëy moom ni ko borom xam-xam leerale maanaam nit ki takk soxna wala jigéen ji am jëkkër. mën naa nekk loo xam ne sax lu war la niki bu fekkee góor gi am na lu mu yoree ndaw si te bu ko yoree tamit ma ngi cay yaakaar am ak njaboot wala man naam sax yaakaaru ko ca waaye daal am na luñ cay yaakaaree ba noppi nag xam na ne bu tëkkul soxna boo mu ci mooy yàlla doo la jëm moom mënta ñàkk jigéen benn mu takk wala mu dem mooy yàlla ci yeneen jigéen ñi kooka dafa war ci moom. waaye mën naa araam ci moom nit ki ar takk soxna mën naa nekk lu araam ci moom mooy lan mooy moom kat bu tëkkul soxna tamit lu mooy yàlla te bu takkee soxna amut lu mu ko yore la koy dundalee kooka xaraam na ci moom muy takk soxna waaye ki nga xamee ne nag moom bu tëkkut du tax mu mooy yàlla bu tëkkul soxna du ko tax a mooy de ah waaye bu takkee soxna wax dëgg ma yaakaar ak njaboot ak yu mel noona kooku wax dëgg sopp nañ ko kooku ku ñu sopp mu takk soxna la. ki nga xamee nag bu takkee soxna am na lum daa def loo xam ne dana ko yàqal loola te loola lu baax la mën na ko daal yóbbu mën na koo puus mu jëm ci bàkkaar donte donte wóorul sax te it bu tëkku soxnaa du ko taxa mooy kooku dañ naan dañ koo sib loolu lu mel ne lu mel ne lu góor goo xam yor na benn soxna ba noppi nga mën naa faj soxlaam foofu mu wóor bu bëgg a takkaat keneen léegi nag bu takkee kooka te xëy na tolloole yaag yem yem war a def wala bokk sax am na yum ko mën a yàqal ci ay xeetu naafila maag ay naafila yu mel noonu wala ci jokko mbokk wala ci dara yoo xam ne mën na caa yàq dara kooku moom loolu dañ koy dañ koy sib kon mën naa bari ay atte lool yooyu benn atte rek ci ay atte yi kon daal cosaanool takk sëy dañ naan dañ koo sopp loolu mooy cosaan li moo tax boo demee ci téere yu mag yi noo di ba lañuy jëfandikoo sopp nañu ku ko man mu takk soxna waaye nag bu fekkee bu tëkkuloon soxna day mooy yàlla te loolu moom bari na ci góor ñi kon loolu ko takk soxna du mën a ñàkk waxtu li fa wuuteef na fii ci takk soxna nag fii zamaani naa ci sunu jamono ji xaasa mile wax na baaduhum lenn ci ay borom xam-xam ne tarkuhoo bàyyee takk soxna wala istixaalu ak soxla woo bil ibaadati ci jaamu yàlla maxaafata adamil qiyaami ngir ragal ñàkk a taxawe bi xuquuqi zawjati ci aqi soxna sa afdalu loolu de moo gën waxaal wax baadoom lenn ci borom xam-xam wax jooju nag moo gën a wér moom mooy attasawuju takk say afdalu moo gën de attasawuju denc soxna wala daal sëy afdalu moo gën waaye jitahidu tamuy farlu fil xalaali ci lu dagan maa lu man doon maa qadara la attan rek maa qadara la mu attan fa in lam yejit bu amut lu dagan fal mutashabihu aji nuuru lu dagan mooy lu lënt rek la ci jublu <laughs> nee na borom xam ne dañu suñ jamono ji daal ni mu yàqoo nga takk soxna ba rëbb matale ay àqam xaw naa jafe la gën daal mooy bañ a takk soxna te góor góor lu ci wàllu jaamu yàlla dégg nga rek loolu daal day demee ne moo gën dëgg wax jooju moom dana xaw a wuuteeg sax sunna su yonante bi sallallahu alayhi bi moom daa santaane. takk soxna da koo da koo santaane ndax ñàkk a takk soxna da lay ci nuroog sëriñ yi eh, eh, nasaraan yi nga ne ñoom duñ takk soxna kon takk soxna ci boppam mooy sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, xëy na lii moom ab kii la rek ah li mu wax nag bu fekkee ne waa ji kat bu tëkkul soxna du mooy yàlla te bu takkee soxna ragal na ne. matal àq soxna si dana jafe kooka de nee nañu kon takk soxna kookee dañ koy sip du nekk du lu ñu sopp xanaa bu dee kooku waaye bu dee koo xam ne muccul ci ak mooy yàlla mu xel xalaatu ko te loolu nag moo ëpp ci nit ñi moo ëpp ci nit ñi waxalaa ku laal loolu mooy ab àtteem yenn borom xam-xam yi ne déedéet wax dëgg yàlla góor-góor takk soxna ngi roy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak wuuteeg yëwoot ak nasaraan ni ko yonent bi jàngalee woon te nit ki di jéem a góor-góorlu kem kàttanam lam man la mënul nag kooku yàlla du ko ca topp la mënut laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaaha donte sax amut lu dagan dëgg muy dundale soxna ci lu lënt am na sax ñu ne ci lu xaraam bu fekkee ne loolu am masala la maanaam dañ ne waaw bu góor gi bu fekkee ne moom bu dëggul soxna mooy yàlla ñu ne waaw ñu ne waaye moom lu araam dong la am même bu takkee soxna alal ju xaraam lay dundale soxna sa ak njaboot gi nu muy def. ñu ne dëgg yàlla dundale soxna si lu araam de lu bon la waaye moo tane kat muy njaaloo jox dëgg yàlla ñu ne kooku subaa kon na takk soxna rek te loolee mu amagoon mu di ci dundal ndax mën na yàlla mën na koo dimbali mu dem ba xelam dellu si mu góorgóoru bàyyi loola dem ci lu dagan dem ci lu dagan lool nag moo gën a wóor ci njaalo moom fitna ja ca nekk ak bon bon ba dafa dafa rëy lool. Mhm. kon daal takk soxna rek ngir roy sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa doonte kenn la. te góorgóorlu ci lu am lu dagan loolu daal mooy mooy la mooy la gën wa nikaaxu nikaax bi maanaal wati bi maanaal wati ci maanaam jote lay yajuusu du dagan fi sarixi ci sarixa bi ahadil amrayni illaa bi ahadil amrayni dara ci benn ci ñaari mbir yi maanaam buñ nee nikaax te fekk lañ ci jublu mooy jote ci sawukaay maanaam góor dem di sëy ak jigéen di jaxasoog jigéen wala jigéen di sëy góor nee na faaw ci ñaari rek lay mën a nekk ci lislaam xaq di nikaaxin mooy fas ab sëy aw milki yaminin wala moomeeluk ab ndeyjoor mooy amub jaam rek mooy moomeeluk ab jaam li xawlihi taala ngir waxe yàlla jam waxoon ne walladina hum ak gaa ya nga xamee ne suñu borom daroon lim julli ñi dëgg dëgg dëgg xad aflaha al muminuun dégg nga da doon lim julli ñi dëgg-dëgg ne ñoom day am nañ ak texe ba daal lim mu beeg mu ne wallazina bokk na ci ak gaa ya nga xam ne hum ñoom daal na way wattu lañu way sàmm lañ li furuujihim ñeer seen i pëy seen sawukaay illaa ala aswaajihim ndare ji seeni soxna aw ma malakat wala la nga xam ne da koo moom ay maanum seen ndeyjoor ci ay jaam dégg nga maanaam góor guy jot jigéen. ñaar la mën a nekk mu nekk soxna sum takk wala mu nekk jaam bu mu am ca jamono yu njëkk ya jamono jaam daa am nit ki bu amee ab jaam te laablu ko ba mu set nga ne xam ne ne ab ëmb amu ca dara amu ca sañ na di joteek moom am na nga yeneen atte yu cay aju rawatina bu amee doom léegi nag bu doon jamono jii mën nañ ne góor guy joteeg jigéen daal lenn rek la mën a nekk mooy mu takk ko takk soxna dong daal di joteeg moom moo mën a nekk waaye amul amul beneen bunt ndegam jaam jóge na fi moo tax mu ne wan nikaaxu bu ñu waxee nikaax bi ma am na maanal wati te lañ ci jublu nekk ak jote loolu ci lislaam ñaar la mën a nekk takk jabar wala amub jaam léegi nag nee naa la jaam moom amatut wala awalu bu njëkk ba mooy takk soxna lëxoo ñeel na ko arka nun ay ponk arbaatun yi di ñeent nee na bu dee takk soxna am na ñeenti ponk ñeent yoox na ne ñooy dajaloo muy doo ko baax ñu doo ko mën a wax soxna si sa soxna la sañ kaa joteek moom al awalu ponk mu njëkk ba alwaliyu moo di kilifteef te bu ñu waxee alwaliyu rek ci wàllu jigéen gi lay jëm falaa yasixu du wér alaqdu fas ba bi doonihi ci lu dul kilifa mooy ndaw si ñuy maye jigéen ji faawu day am kilifa faawu day am kilifa moo xam ki ñuy maye ab jànq la moo xam ab jeeg la daa fekk bu dee ab jànq nag sañ nañ koo forcé bàyyam sañ na koo maye te du ko yëgal sax donte yëgal nag moo gën a jamono ji ni mu yàqoo bu dee ab jeeg moom kenn mënu koo forcé waaye nag du sañ a maye boppam lii mooy ngirum imam Malik wa illa borom xam-xam yi am nañ ci yeneen wax am nañu ne jigéen sañ na maye boppam am na ci ay borom xam-xam yu ko wax defe naa Abu Hanifata ak ñu bari ndax nee ñu alwaliyu gii daal wax dëgg yàlla alxuraan amul fenn fu leer naññ wala xadis fu leer nañ naññ ñoo xam ne mënta ñàkk te bu fekkoon nag wax dëgg yàlla àgg na foofu nekk lu mënta ñàkk lool faaw lislaam war na koo leer andi ci ay aay yu leer naññ wala xadis yu set ndax mboolem aay ci yi ci tegtaloo ay ihtimaalaat la rek aay yoo xam ne dégg nii mënees koo dégg nii bu dee xadis yi am na xadis yenn yi waaye daa am ay yu ca am laa nikaaha illaa bi waliyin wa sadaqin waaye daal bu dee ci masab moom jigéen ji ñu may faaw mu am kilif kilifa gu koy maye. doonte ma sañ naa tànnal boppam ndax ab jeeg la bu tànnalee boppam kam bëgg ba noppi faawu baayam moo koy maye wala bu amee doom ju mag doom maye ko wala bu amee ay mag ju góor wala rakk ju góor te nekk mu kalaf ñooña maye ko. wala bu fekkee bu demee ba amul menn mbokk mu ko war a maye ci mbokk yu ko jege mu dem ci benn góor julli rek kooka maye ko comme doy kon ponk bu njëkk baa ngi noonu mooy ab sëy daal mënta ñàkk kilifteef bu dee ci ngiru Malik kon noon la wayu saratu def na sart fil wali ci kilifa gi surutun ay sart kilifa gii nga xam ne moo moo mën a maye faaw am na lu war a daje ci moom am na nu mu war a mel min ha bokk na ca ittifaaqu diinay ni dëppook ñaari diine yi falaa yu du sëyloo alkaafiru góor goo xam ne ab yéefar la muy dub jullit al muslimata jullit bu jigéen walal muslimu du caaginu jullit bu góor du mën a sayloo al kaafirata yéefar bu jigéen ba illaa an takuna ndara bu dafa nekk moom yéefar bu jigéen boobee amatahoo di ab jaamam muy jébéeram aw maatuqatahu wala muy kumu goreelam koo xam da koo goreeloon nga ne moomam kilifteef ki fay na naka moom euh, jullit bu góor bi de yu sawi juha dana ko sayloo dana ko maye mu sëy dégg nga kilifa gi dañuy sart ne bépp jigéen bu ñuy maye kam bokkal diine moo koy maye loolu mooy tënk bi rek loolu mooy tënk bi maanaam jigéen ku mu bokkalul diine mënoo koo maye loolu lim ci lim ci settee nii bu fekkee jullit bu góor dafa am ab jaam waaye jaam bi ni ab chrétien la kon kooka day suba buy sëy mën na koo maye ndax lan ndax daa daa nekk kilifaam wala sax daa nekkoon ab jaamam mu goreel ko dese kilifteef gi ok waaye bu dul lool rek ab jullit bu góor sëñ te dem di takk sëyu koo xam ne jigéen nga du ab jullit li muy wax nga xam ne bari na bitim réew lool boo demee bitim réew gaa yi dañ ñëw rek ci kër sëñ Touba yaag kër yi Sénégalais yi daje jeeg indi sab tubaab boo ñëwee gaa dem di la ko takkal loolu ñàkk xam dëgg-dëgg la lu bari la. lu bari la mooy ci moodu moodu yi eh, dañ lay wax ne la loolu bari na lool te léeg-léeg kat ña koy def sax wax dëgg dañ naan ay borom xam-xam lañu xam naa ne masala mi da leen a réer na rek da leen a réer maanaam ku ñëw ne la damaa bëgg eh, tubaab bii damaa bëgg nga fasal ma ko la ca njëkk mooy nga ne ko waaw moom mii ban diine ndax am na diine mu nekk chrétien wala juif bu fekkee ne du chrétien du juif ni ki gëmul dara wala majuus la wala yu mel noona ba ne ko kon sariya araamal na ko mënoo koo takk bu fekkee chrétien la wala juif ne ko ah mbaa téye na mbaa nekkul koo xam ne rek day wër di njaal lu ko neex def bu fekkee ku mel noon la araam na dëgganul nga takk ko ñetteel nga na ko waaw moom mii day tuub dugg ci lislaam wala boog daa bëgg des ci diineem su dee ndaw si wax bu nee damaa bëgg a dugg ci lislaam kon moom ñu daal koy tuubal mu tuub kon mënees na koo maye ndax léegi ab jullit la léegi bàyyam sax mënatu koo maye ndax bokkuñ diine waaye bu ne man kat diine chrétien ga ma nekkoon laay des chrétien laay doon su boobaa kat ne ko ah, kii kat kon ab jullit mënu koo fas sëy bi ab mënu koo fas faaw day dellu ci baayam wala magam wala ku mu bokkal diine kooku moo ko mën a fas waaye gis nga Sénégal yi ma dañuy dem rek ñu leen di fasal rek nag ñay fas it wax dëgg yàlla xam naa ne benn masala yi réer leen wala rek ñu ñàkk a xam mu nekk kilifa sax ku ko fas wax dëgg yàlla xëy na masala mi moo koy réer rek kon ab jullit bu góor. sëy bu muy takk rek day fekk jigéen ji ñuy takk doon ab jullit ni moom bu dee jaam moom amatut ab yéefar tamit mënta mënta maye mënta maye jigéen donte kooko doomam la sax maanaam ab jullit yàlla nañu ci musal bu amoon doom doom ci nekk chrétien bu ñu demee ba war koo maye moom mënu ko maye da koy yebal ci ñam bokkal diine gis nga ko ni mu ko jegee waaye mënu ko ab yéefarit bu amoon doom doom ji nekk jullit bu demee ba doom ja mat denc doom ja buy sëy juru sax muy wax baayam dara xanaa rafetal rek. waaye buñ koy fas ab jullit mooy takk sëy boobu waaye moom mënu koo takk kon loola mu ngi noonu leer kon loolu mooy ponk bu njëkk bi bu njëkk bi daal mooy kilifteef waaw kilifteef daal faaw gi góor gi am euh, jigéen ji faaw mu am kilifa gu koy maye kilifa gi tamit faaw mook moom ñooy bokk ñooy bokk diine ñooy bokk diine gis nga borom saraa bi ci muqaddima ese bi gën na koo leeral nee na lan ah, walaw ibnatahu albikr wa isa waqaa haza nikaax fa huwa fasid maanaam ab jullit bu fekkee dañ koo indil ku dul ab jullit di jigéen moo maye ko say ba day sëy ba day yàqu dama hmm. ci xalil gën na koo gën na koo leeral kon daal masala moo xam ne moo bari na lool ci bitim réew ñoo xam ne seeni sëy ab jullit moo leen ko takkal te jabar ja kat du ab jullit loola baaxut incha allah ndekam bu fekkoon ne sax kii nga xam ne du ab jullit bu doon sa doom sax doo ko sañ a maye bu doon sa doom sax doo ko sañ doo ko sañ a maye waaye waaye rawatina kay bu dee fekkee daa nekk doomi jàmbur nga ne dañu ko indil nii rek kooku boo ko juróon bu demee ba ba mat a sëy da koy jox ñam bokkal diine kon daal gàttal gi mooy ab jullit mënta fas sëy boo xam ne ndaw sax jigéen ja du ab ni moom bu jigéen ñi nekkul ab julli rek nañ ko jox ay mbokkam fas gañ koy fas nag nekkul dañuy dem église wala dañuy dem fenn déedéet fas la rek xam nga fas moom ñun ñoo xam ay jàkk ak yooyu waaye lislaam waxul ay jàkk waxul dara nañ ko fas rek fu ñu mën a daje ko rek kon boo demee seen kër ñaan baayam wala magam wala nangam naa bëgg seen doom ji du ab jullit chrétien la ngeen may mag mu nekk sama soxna ñu ne d'accord nañ may nañ la ko nga génne can nga joxe boo demee sa mbokku jullit nga siiwal ne diw mi kat takk naa ko léegi sama soxna la mu leer naa ñu laataa ngay séq moom dara na leer na leer ñëpp nga leeral loo dem naa ci ay mbokkam may nañ ma ko waaye jërut dem ay euh, église ak jërut dem fen jërut dem jàkk jërut dem fenn kon loolu mooy benn ponk bi incha allah bu ëllëgee ñu tàmbalee ci. Euh, ñu ngi ci kilifteef kilifteef gi nee nañ faaw mokki mi may dañuy bokk diine incha allah wala nga ñëw ci li ci tegu yal na yàlla defal dégg defal nu topp.